jongante alxuraanul karim bi ñu doon amal ci àddina bi yëpp dañ ko doon amalee ci réewum Dubaay sénégalais bi nga xam ne moom moo jël deuxième di El Hadji Cheikh Dia dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba ak yeneen ñi nga xam ne ñoo jël raw gàddu gi ci concours national bi nga xam ne Sénico moom la doon amal mu jëm ci jongante alxuraanul karim te Moustapha ture jiitu ci topp ci Ibrahima Khalil Lo ak Moustapha Dieng ak Serigne Modou Mbacké ñoom ñëpp dëkk ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba jàngee fi alxuraanul karim ñoom ñëpp ànd ak seeni encadreur seeni waajur ñu gàttandu leen fii ci Touba Mbacké Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides dalal leen waaye am mbégte lool ci performance yi nga xam ne réewum Sénégal def na ko ci jongante alxuraanul karim ci àddina bi waaye ci taxawaayu daara yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci Touba Mbacké ci liggéey bu am nga xam ne def nañ ko ba jongante yi nga xam ne am na ci biir réew mi dëkk bu sell bi di Touba ràññeeku ci bu baax a baax Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou dalal leen fii ci résidence Khadim Rasoul ci altine ji dëppoog le 18 avril 2022 ci teewaayu kilifa yu toog yokk lool ñu amal fi jotaay bu yaatu boo xam ne yëkkati nañ fa alxuraanul karim amal fay taalif waaye am kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fi bismillahi rahmaani rahim ma jóg béral cant gu siiw ndam yi nu xam du ndam lu néew nan àndandoog sun mag réew sargal si doomi daara yi jam nañu njog la ñëpp diir am nañu way wu dootu réer alhamdulilahi alqadir ndam ñëw na doomi daara yi yàlla nu sédde alxuraan nun lañu may naasi balaan nan maase kañ xalel yi daan daanaa ni doomi daara yi jël nañu ndam la wan Dubaay ak Abidjan Ndakaaru Njaay na ñëpp jóg nu maase waay sargal jaloore daara yi te alxuraan ji ay ndamam deful lu tuuti ci ñoñam ñëpp ko diir te noo ko jam jaaraama doomi daara yi daara sigil na Sénégal tey jii ci bépp capital waaye réew mi war nañoo fulaal ngir yàlla doomi daara yi jaloore am na ñuy ñaloor jaloore yéen am jaloor wallaahi yéena a sell mboor jaloore yaa ngi ci daara yi ku leen di suuru daa wérul ku di dëkk daa wérul àddina yàgg naa cëral kàngam yi jiite daara yi sunuy xale lay dem biti réew sunuy xale yi dem biti réew lëmbe ko toj fa seeni géew jël ndam la indi dal siiw kenn mën la mabbu daara yi sunuy xale yi dem biti réew lëmbe ko toj fa dal géew jël ndam ya indi daal di siiw kenn mën la mabbu daara yi alaaji seex ja toj dubaay mokkal ga yéem na yooyu gaay gone gu ndaw ci biiri baay jël ndam andil ko daara yi seex fallu ñas albaraka ndam lañ tegoon ci afrika yaa ko cas du kii du ka andil ko réew meeg daara yi waa c loola ndam seex fallu sànqe moo ko jam mbindam ma yéem na ay kemam taaral na daayi daara yi waa sene kooña bantare wërngal ba Moustapha Touré moo gàddu ndam la maa ngi kuy jiima noonu yi kon ndam yi teew ak ndam ya wéy yeyoo nañoo kañ ak a way te sant ñiy jël seeni may di xëpp doomi daara yi la footballeur yi doon yeyoo la dongo daara yi yeyoo mbaa lu ko moy danañ la yoo ndam-ndam la doomi daara yi ab kub gënul kaamil fi nun jogante ji jogante nañ te jiitu nan na ngeen defaat na ngeen defoon état na geesu daara yi terrain yaay yi jombu leen millions yi rong yi jombu leen pale ba laana jombu dalal fa doomi daara yi raaya ngëñal yi ñoo ko jël jaaraama nee leen njoo ko njal bur yàlla moo fasoo añal jàmbaar doomi daara yi yéen jiitu ngeen Malek Niseer Dubaay di leen damoo ba keer yéen a ngi ca njoboxtal ya goor réew yëpp a ñeesun daara yi seen ndam yi tax na xol yi neex tey daara bég na ñëpp feex may ngeen nu mbég mu déeti jeex mbég maa ngi doomi daara yi Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na jëm fi yow yàlla na sa fan wi law law yaay wéeru waayu daara yi waxaat ko Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na ñëw fi yow yàlla na sa fan wi law a law yaay wéeru waayu daara yi ban la amee ba fii nu tol ndam lun fi yootu dal ko jël sa fan wi yàlla na nañ ko ful ngay jiite dame daara yi faral taxaw Ahmadou Baas te sëlmalaat ci xayru naas te sant Cheikh Bamba mi sam xel ci sargal daara yi allahumma salli ala muhammad wa sallim waaw incha allah kay ci daara yi ñëpp lool mu jàng waaw waaw waaw. laaj lay na lool. daal war nañ ko xam ne ba ñëpp dégg dégg ko. wax ah, ah, dëgg nii waaw waaye yoon bu ñëpp xam ko. Mm-hmm. alhamdulilah. daa wax ne rek. waaw li mu demee nii. waaw li nga wax ak lépp. waaw day lu ñu war a ñëpp war a xam. Mm-hmm. dëgg la laaj na émission laaj na tel laaj na lépp. Mm-hmm. bañ xamee ko nii. bañ xamee ko moom leer ñëpp. incha allah ñaari aay rek sëñ bi. waaw incha allah leer boobaa day soññ ñëpp. day soññ ñëpp waaw day soññ ñëpp. incha allah moom it moo demoon Dubaï. moo moo demoon Dubaï ma jël ñaareel bi ci àdduna si.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 فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم آه، الحمد لله دنجنكم من سيرين بي دغنا الحمد لله في سرين بي تغور القران كنتكو في الحمد لله موتاخ لي لب نداما موتاخ ان شاء الله ندامي كانم ان شاء الله ندامي كانم رك لا جيم الحمد لله الحمد لله جيتو الحمد لله تبارك الله الحمد لله يلا ديف بركه سي امين نيوم ني اك جابول دي نيب من لنا غنا خير سي بوبم لنا خير سي ديني الاسلام قال لنا خير سي سنتوا امين sax gën leen a sàmm. gën leen a wéral yàggal leen lool. ñu gudd gudd gudd gudd. wàll gi wér wàll wér ak kattan. buñ mën a sax dàkk ci liggéey la liggéey la alxuraan liggéey ci liggéey ci alxuraan. liggéeyal ci sëriñ bi. ndax sëriñ bi fa mu teg alxuraan kenn teg ko fa. waaw fa ko àggale kenn xam ko kenn àggale ko. kon nag alhamdulilah rabbil noo ngi sant santaat suñu borom. ñu booleeg sëriñ bi. di gën a sant sëriñ bi. moo ngi xam ne mooy suñu lépp tey ak ëllëg. rawatina ci nag ci ndam yu yees yi peq. nu am. waaw tey lépp pàggute fa lépp pàggute mu juba boromam la. kon loolu ndam la yu tàmbali rek la waaye incha allah kanam rek la jëm kon jërë noo ngi sant. waajur yi seeni i waajur noo ngi sant yi leen doon taxaw di leen jàngal noo leen sant ñoom ñii itam ndax li diggante bii ñu am lii ñu am lu lay xaj na lu ñu xajoon na ci saxal bu ne xajoon na ci waaw kon kon kon loolu li di suñu boom toog toog leen suñu boom defal la waaye nag am nañ ci cër yàlla jox na ci cër waaw ndax ndax ndax nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu jóge woon eh, jubalu ko ni taxaw ko ni suñu bopp def ci seen bopp def yitte ju toll na jigéen ji ñu taf ba am ci ndam lii ñu am loolu am nañ ci yàlla may jox nañ leen ci cër kon man moom kon man dañoo bu baax a baax sant leen sëriñ Tuubaa bu baax a baax sant seen i waajur sant ñi leen doon jàngal sant leen gërëm leen ñoom ci seen bopp noo ngi sant sëñ Ahmadou Bass itam ci euh, euh, mu tënk ndam lu rëy lii nu am euh, di ñaan itam nañ nañ nañ ko ubbil jotlikaay yi. yëglikaay yi. Mm-hmm. Eh, yeetekaay yi. Mm-hmm. ñu ubbil ko bunt. may ko ci. Mm-hmm. Eh, may ko ci ndigal. Ah, ba mën ba mën a ba xës dëgg ah, eh, ñëpp mën ko gën a dégg. gën a xam fu mu jëm gën a xam lu doon. Ah, gën ci gën ñëpp gën a mën a sant. ci ci ci ci ndam li rëy di ñu am. ndam li waaw ndam li tubaarkalla seen tubaay itam. moom alhamdulilah rabbil aalamiina tawféexi Sénégal la ndax réew yi bari na lool te fii la feeñ kon nag Sénégal ñoo bokk ndam li waaw te it ñoom Sénégal gépp ñoo war a sant sant bu baax seen seen seen sëñ Tuuba seen seen Ahmad Bamba ni mu leen ni mu lool waaye fii la fii la fii la waaw te te li li ma ci xam ak li ci gëm. mën ma ko wax yëngu li ma ci xam ak li gëm mën ma ko du ma du ma ko wax ci sama lam sëñ ma ko wax